L'eau multimédia moi de di émission Assalafou Ma'al Qur'an nous sommes l'eau multimédia 27 avenue Émile Bajan, angle Paul Oldakar. Dakar l'eau multimédia spécialiste le l'informatique, informatique bureautique divers matériels réseau et accessoires ci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 mbokk yi nu ngi siyaara jëmm yi nga xamante ne ñoom ñooy ànd ak ñun jotaayu majalis bii di asalafu ma alquran ñu ànd di xamlu tey xamlante tey béglante ci téere yàlla bii di alquran al karim yàlla nanu yàlla boole ci ñooñ alquran alladina hum ahluhu wa xaasatuh ñu koy amee ci kër gi di la maison du Coran comme niñ leen ko waxee la maison du Coran fépp lay dem ñu daal di dund li nga xamante ne moom mooy alquran al karim yàlla nanu yàlla buur bi subhanahu wa taala nangul te boolañ ci ñooñ alquran fi dunia wa fi aalami albarzakh wa yawm alqiyama wa fi jannatin aaliya qutufuha daaniya inchaa allah ñu nekkoon ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu dundee alquran ak ni mu ci yaree sahaaba yi akhbar wa athar kathiratun tatra tey jii suñu delloo ci jamono joojee parce que tey jii ñun dañoo war a jël ci jamono joojee pour mën a defal suñu jamono mën a xam fu ñuy teg suñu tànk mën a xam fu ñuy dem nan la alquran jaraloon yonente bi lan la jaraloon sahaaba yi lan la jaraloon asalafa salih dafa am benn bés abdullah ibni masudin radiallahu anhu mu daal di wax benn waay تليما وخني إمام مالك نتل لكم شيء موطأ إمام البخاري نتل لكم شيء أدب المفرد كنا خمسة ابن بطة نتل لكم ابن عبد البري كن هذا خبر صحيح يوم يبنى نتل لني وحدي بيني بس ابن عبد الله بن مسعود دفع خول بيني واي مونيكو إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتديع حروفه كثير من يعطي قليل من يسأل يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يعطي تحفظ فيه حروف القرآن وتديع حدوده يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون أهواءهم قبل أعمالهم لا إله إلا الله عبد الله بن مسعود moom moo wax wax ju rëy ji dafa xool benn waay ci jamonoom jamono saxaaba yi mu ne ko kaay ba mu ñëw mu ne ko innaka fi zaman yaa ngi ci jamono joo xamante ne kathirun fuqahaauhu jamono joo xam ne bari na ay borom xam-xam lool bari na ñoo xam alquran lool bari na ñoo xam ne dañoo jàng alquranul karim lool xam ko di ko gurgur di ko jëfe waye ya qalilun qurra'uhu ñi nga xamne ñom ñoy ay qurra moy jankatu alquran ñom dañuy jang baat neex dañ cey neew parce que sahaba dem nañ ba nek mak alquran door ñew ñi door commencé jank mu ne ñu bare bare ci ñom ay fuqaha ñi xam alquran bari nañ ci lool waye ya qalilun qurra'u ñi nga xamne ñom ñoy qurra'u yi jankati dañu neew mu ne tuhfadu fihi hududul quran ñom dañuy sammo ak li nga xamne moy dayo alquran yi dañuy jëfé alquran jëmru sahaba yi kanu ya'maluna bi hada alkitab kama kom ni nga xamne noné noonee la roteete rot ci ay akhbar yu bari ñom sahaba yi suñu jàngoon fukki laaya dañuy daal di toog daal di koy jëfe jëfe ko ba pare door jàngat lenen manam ñom suñu déggoon ab hadith dañ koy jëfe door jàng benen hadith suñu déggoon laaya alquran dañ koy jëfe door jàng benen muné ne tuhfadu fihi xududu alquran ñoom dañuy jëfe alquran waaye watu day yaw xuruufu nga xam ne léeg-léeg suñu jàngee sax nga gis ne jàng bi daal di am yu bare yu ci manqué moom moo taxoon soo gisee ixtilaaful qiraat wa riwayat sabab bi taxoon ki nga xamante ne moom abi bakrin sadiq daal dajale alquran def ko ci benn téere sabab bi taxoon Ousmane ibn Affan daal di jël téere yooyee dajale ko ci nekk benn téere muy mushafu Ousmane yooyu yëpp parce que al ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci village yi wala ñu sori dañu commencé woon dugg ci l'islam nga xam ne ñu jàng alquran daal di ci def andi ay yàq yu bari mu ne kathirun man yu'ti mu ne ko jamono ji nga toll joxekat yi dañoo bari lool nit ñi dañ lay may balaa nga leen di laaj du ñu bàyyi ba nga ñëw tàllal leen loxo du ñu bàyyi ba nga def vidéo pour ñaan leen du ñu bàyyi pour nga woo leen ñaan leen dañu lay xam rek daal di ñëw jox la kathirum may yuti qalilum may yasal ñii laaj nag bariwuñ loon bariwuñu woon parce que saxaaba yi dañoo amoon jom mag ña dañoo amoon jom ñoom daan nañ def lépp ba mu des laaj ñoom lépp loo xam ne manqué le nañ ko dañuy takk seen digg daal di jóg dem liggéeyi ko doonte dañuy taxan moo tax yonent bi waxoon ne kenn ci yéen mu daal di taxan ba pare ñëw jaay ko ci marché bi moo gën mu tallal loxoom di wër di ñaan dañu daan jaay dañ daan eh, dañ daan sàmmi lu nekk dañ ko daan def qalilum may yasal yalwaan gi dafa bariwut woon dafa tuuti woon lool ci jamono saxaaba yi ku ci am doole ku ci wér rek da ngay dem ñaqi pour andil sa njaboot waaye daanuñu woon nekk ci arnaque ak ay pexe ak ay kàcc ak yu mel noonu pour andil seen njaboot mu ne yutiluuna salaa dañu daan guddal julli lool lool lool moo tax léeg-léeg ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg fajar suñu kabaaree ñaari raka bi day fekk jant waa ngi feeñ ca kaw maanaam da ngay dégg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ne yonente bi na tari sortu yusuf ba mu jeex na tari sortu eh, albaqara bés kabaar na tari sortu ali imran bés kabaar eh, na tari sortu nisa ولا سخ بس كبرنا داري تاري بقرة تكتي تكتي عمران تكتي نساء <laughs> آية تيجي لا إله إلا الله جكبر في تيجي كذي فسينا تاري سورة ياسين بمجيخ بسوا بعد أجمع بچة توب جنوا على جماعة جنگي جس جنوا على جماعة جنيب بيدم دينا نندم فوقاو لا إله إلا الله بس كنيم دان نجحنا نجوم تكنا ميا لبربي سبحانه وتعالى صحابي دينا قتل جل خطبة ما نم يقصرون في الخطبة ويتقلون الصلاة سنوخ دادون نيو جل جامو يالله جبياتو لول ما نم خطبة جدادون قت جل جي قدو loolu li muy tekki mooy dañ daan wàññi wax di jaamu yàlla waaye ñun nag fii dañuy wax rek mu ne nag jamono ngi ñoom mu ne yubadduuna amalahum qabla ahwaihim ñoom dañuy jiital seen i jëf waaye duñ ko duñ duñ ko teg ci seen bànneexi bakkan jamono jii ngay gis nit ku fekk benn xadis la muy firri mu fexe ba def la muy def ba pare daa di koy daganal ci xadis ba wala def la muy def ne non dagan na alquran ko wax saxaaba yi daanuñ def noonu Abdul Masud daa di wax waa ji mu ne ko ngi ñëw jamono ngi ñëw كثير قراؤه جنكة القرآن داي بري لول لول لول لول واي قليل فقهاؤه ñi xam alquran dañuy tuuti lool mathalan jamono ji jànkatu alquran yi bari nañ lool waaye jafe na lool nga gis ci koo xamante ne mu ne la firri naa alquran alkarim ca daara ja ba mu jeex toog naa ca daara ja jàng ulumul quran toog naa ca daara ja jàng ay sababu nuzul suwaat jàng na sababu asbabu nuzul bu alwaxidi yu naysaburi ولا من جانا سبب النزول بو آه، آه، السيوطي ولا من جانا سبب النزول بو محمود المصري ولا جنغنا سبب النزول بو كان اكان اكان ولا جنغنا مباحث في علوم القران وما الى ذلك دين جانكاتي دانيو باري لول واي نيغا خامني نيوم نيو خام القران دانيو توتي لول نينا تحفظ فيه حروف القران دان فاي موكال ليغا خامني موي خيتو جانينو القران مانام القراءات والروايات وكذلك القراءه الصحيحه jamono ji la jàng gëna wér da ngay jàng mu wér lool lool lool alquraau kuthur way wa hududu da nuy sank xoti wor may alquran dañuy mokkal alquran mokal ko ci ay qiraat mokal ko ci ay riwayat waaye suñu jëfé rek nga xeb leen allahumma lutfuka ya rahman allahumma altuf bina yàlla nu yàlla yeeram nanu góorgóorlu jëfee alquran ana al awan li na'mala bi hada alkitab mate naamalu bi hada alkitab kañ la ñuy jël décision jëfe alquran jot na pour ñu jéem a jëfe alquran kon mbokk yi li nga xam ne moom la ibnu mas'ud daal di nettali ci hada alxabari mawquuf jot na jamono ji tey ji jànkat yi bari nañ waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo xam alquran xam-xam-xamu fiq tuuti nañ lool kon nañu gën a renforcer côté boobee loolee la ñu saxaabi bi ten tanbih parce que xabaar la parce que loolu tanabbu la mënu koo xam ci yonente bi rek la ko mën a jëlee donte xabaar mawquuf la كم نكو ابن مالك نتلي بخاري نتلي كنون ابن بطة نتلي ابن عبد البر وكذلك غيرهم من العلماء نون يلنكو نتلي نين تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل يلوان كثير نيو باري لول لايك كتي وقليل من يعطي ني جوخي دانيو نيو لول لول لول يطيلون فيه الخطبة خطبة يدي قد لول ويقصرون الصلاة جولي يداري قط لول لول جافينا لي ندوغو فين ني جولي جولي غو خامني اوبنا جيرومي مينيت ويسنكو waaye xutba gi moom wax ji dafay gudd lool lool xoolal suñuy émission yi ci gën a bari ci télévision une heure temps la te koo ci bëgg a jaamuloo yàlla une heure temps nga andi problème ay conférence yoo xamante ne journée bi yëpp lay jël maanaam wax journée bi yëpp am na ñoo xam ne léeg-léeg mën nañ toog di wax ba waxtu julli jot du ñu ne nit ñi jug leen dem julli ji léeg nga gis ko ak jotaay bu mu mënti nekk ak fu mu nekk yow mii di ma déglu jotaay ku mu mënti doon lu mu mënti doon waxtu julli su jotee génnal ci baas bi nga dem julli ji suñu mayewul waxtu julli ne nañ arrêté conférence bi wala nañ arrêté ak lu mu mënti doon juggal ndànk nga dem julli ji soko deful yowmal qiyam mu ngi lay xaar ci sa kanamu borom yàlla laj la lu teewoon julli amul sabab bi tax jullit ak xelam yàlla may la nga yexé julli su joté rek juggal nga dem julli ji kon yutiluuna fihi alkhutba wa yuqassiruna sala dañuy guddal waxi ji waye gàttal li nga xamne moy jaamu yàlla buur bi subhanahu wa taala يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم جمعنا لجو خامنة مغنيو نيوم دا نيو جيل سين باني بكان لا نيو جيل دا دي كوي تك تكو القرآن أك سنة موم لا نيو جيتل مبكي لي لا صحابي بما غبي وخون نانيو باي خيل جانغ القرآن دا دي كوي خام ميتريزيكو موتا أبو أمامة الباهلي وخون رحمه الله اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن نانا جانغ القرآن نانكو جانغ xam ko téere bi nañ ko xam nañu góorgóorlu daal di koy xam iqra'u alquran wala taxurrannakum hadihi almasahif almuallaqa téere yii ngeen teg nii bu mu leen nax maanaam gars yi léeg-léeg am na ñoo xam ne pour ñu wane ne am nañu xam-xam wala am nañu hayba dañuy fexe daal di tabax bibliothèque boo xam ne kenn xamul na mu toll soo duggee ci kër gi rek téere yi daal di lay gàttandu waaye te leer na yàlla ne mosuñ cee liir benn wala buñ liir sa kanam yàq lépp mu ne téere yii bu leen maanaam bibliothèque da ngay fexe mu nekk fii ci sa xel bi ak dënn bi al ilmu ma xufis da ngay fexe mokkal ko ci sa dënn iqra'ul quran kon téere bi nañ ko jàng bañ a jël ay kaamil rek def ko ay meuble wala taxurrannakum hadihi almasahifu almuallaqa fa inna allaha la yu'adhibu qalban huwa wi'aa'un lilquran yàlla du mbugal xol boo xamante ne ndabu alquran la xol boo xam ne dafa mokkal alquran wala mokkal la maa tayassara minhu la nga xam ne moo ca yomb mu daal di koy mokkal mokkal na fatiha ak saar ya ca topp mu koy nafar ba mu mokk mu nekk jàng bu wér ca dënnam xol boobu yàlla du ko mbugal yowmal qiyaam كون تاي لي مو نيكون سونو جوتايو السلف مع القران ما كان من ثواب فمن الرحمن وما كان من خطا فمن نقصان صلى الاله على النبي واله ما لبى ملب او تهلل محرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Nous sommes l'eau multimédia. 27 avenue Émile Badiane, Angle Paul Hall Dakar. L'eau multimédia, spécialiste la ci informatique, bureautique, divers matériel réseau et accessoires, i accessoires